لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر نجي نيانا الكليفة دين دي نيانا الكليفة ريومي دي نيانا الكليفة كرغي دي نيانا نيغا حمنتني نيو وابو tëdd ci lalu hôpitaux yi di ñaanal tamit ñi nga xamante ni ñooy doxaale feebar jom ak coono yi àdduna tax na ba mënuñoo tëdd ñooñee ñëpp yal na leen yàlla subhaanahu wa taala taxawu ar leen defal leen aafiya biir biti ñu ngi ñaanal sunu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci bërëbuk yarukaay yi yal na leen yàlla subhaanahu wa taala taxawu dolli leen xoluk muñ génnee leen ci jafe-jafe ji nga xamante ne moom lañ nekk fa inna maa al usri yusran inna maa yusra ñu xam ne mu guddi lu mu yàgg-yàgg fajara ngi ñëw ak leeraayam te da koy xar xar li nga xam ne mooy lënd mu guddi yal yàlla subhaanahu wa taala fenqal seenug bëccëg yal yàlla subhaanahu wa taala delloo si waat leen ci njaboot gi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fañ leen daan nuyoo di ànd ak ci jotaayu biddeewu xeet wi jotaay bi weesu gisoon nañ abu bakarin siddiq radiallahu anhu ni nga xamante ni noonee la ragale woon yàlla subhaanahu wa taala ni mu amoon yëg-yëg ci mbaaxam ñu ngi yemoon keroog ba abu bakarin siddiq radiallahu anhu doon dajale saxaaba yi di diisoo ak ñoom di leen laaj seen xalaat ci Umar ibn al-Khattabi radiyallahu bi mu bëgg a tànn def ko mu wuutu ko bu fi jugee ngir ne mu nga yëg ne li ko dese ci ay fan ci àdduna bariwul te ni lislaam yaatoo bëggul bàyyi tooluk lislaam bi noonu mbir yi di jaxasoo mu jàpp ne faw mu wuutal fi koo xamante ne dina mën a taxawe mbiru jullit ñi gis ngeen ba mu woowee Saïd ibnu Zeydin woo Usayd ibnu Alxadar Xudayr laaj Abdurahman ibnu Awfin diisoo ak Omar ibnu diisoo ak Ousmaan ibnu Affanin radiallahu anhu ñoom ñëpp gis ne xelal ko dëppoo ak moom ne waa ji mooy Omar ibnu Alxataabi radiallahu anhu si la Abu Bakrin Siddiqi radiallahu anhu jëlee décision ne dafay tabb Omar ibn al-Khattab proposé ko pour mu nekk kiy wuutu jullit ki koy wuutu ci jullit ñi laata ñuy yëkkati jotaay bi weesu wax naa ci mujjanteelu jotaay bi kene benn waay dafa ne Abu Bakar Omar mii nga bëgg a jiital sunu kanam te ni ko xamee mu nekk góor gu dëgër ku tar ci ni muy jëflante ak nit ñi soo taseek sa boroom mu laaj la lu tax nga jiitaloon Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu looy tontu yàlla Aboubacar fekk mu ngi tëdd feebar baa ngi koy mën mu daal wax ña toogoon ci wetam ajlisuuni may leen ma ma toog yëkkati leen ma ma toog bañ ko toogalee mu daal wax waa ji ne ko abillahi tuxawwifuuni ndax dang may tiitloo di ma ragalloo ci yàlla subhaanahu wa taala dima wax lan lay tontu yàlla lamay tontu yàlla déglul suma yàlla waxe lutax nga tan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wala suma yàlla laje kan nga baye mbiru sama sama jam yi ci sa ginnaw dina ko tontu ne ko inni staxlaftu ala ahlika xayra ahlik ki gën a baax si sa njaboot ki gën a ci mbindeef yi ci sama ginnaaw كوكي لا فباي كوكي لا ووتل سلا عمر بن سلا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه نكو كاي نغ بندلما عثمان جل خليمه غا تشاب تي داغي تامبليك بند منكو بندل بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد ابو بكر بن ابي قحافه في آخر عهده بالدنيا خارجا من خارجا منها وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليكم مدادخم daal di xëm leen kàddu la wax na بندل نكو لي موي ahd kollëre abu bakrin siddiq mi doomi abi quxaafa lii mooy kollëre gi muy bindulu ci mujjanteeluk dundam ci àdduna di génn àdduna ci première dundam ci àllaaxira di fa dugg nga xam ne jamono ji ku weddi woon yàlla day gëm jamono ji ku kàccooroon da koy wóor ne lii mooy dëgg jamono jii ku doon weddi tey lay dëggal li nga xamante ne moom lay gis bi mu waxee ne na leen wóor ne jël naa diw pour wuutale ko rek mu daal di xëm Ousmane ibnu Affanin radiallahu anhu bind kontine phrase bi inni staxlaftu aleykum Omar ibnu alxataabi radiallahu anhu jël naa Omar ibnu alxataab radiallahu anhu ma wuutale ko mu doon ki may wuutu keroog ba abu bakrin siddiq radiallahu anhu ximmali ko mu daa wax Ousmane ne ko liiral ma li bind Ousmane daa koy liiral li mu bind rek Abu Bakar daa di ne allahu akbar mu daa wax ne dama ragal ne danga bañoon nit ñi wuute sama ginnaaw bu fekkoonte ne wuutu sama bakken dellu si waatul bi ma dama ragal ne danga ragalo nit ñi wuutu féewaloo ci sama ginnaaw moo tax nga bind lii nii Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu ne ko waaw Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko jazakallahu an il islaami wa ahlihi xayra yal na la yàlla subhaanahu wa taala fa yiw mu liiralaat ma li nga xamante ni moom mooy baat yi Ousmane daal di koy liiralaat Aboubacar daal di koy wax ne génnal ci biti nga wax nit ñi nañu jaayante ak ki nga xamante ni moom moo nekk ci biir téere bii ginnaaw ba ñu xamee ne Omar ibn al-Khattabi radiyallahu nit ñi jaayante ne dinañ déggal Omar dinañ topp Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu mbokk yi wax naa keroog ci jotaay bi mujj ne Aboubacar sentir na mu ngi yëg ne mu ngi dundu fanam yi mujj ci àdduna moo tax ci laluk feebar la tëdd waxtuk tàggatoo jot mu war a wuyu ji borom bi subhaanahu ginnaaw bi mu dundee dund goo xamante ne gu gudd la fees dell ak cofeel fees dell ak mbëggeel fees dell ak joxe fees dell ak ak sacrifier fees dell ak maandu fees dell ak ngëm Omar ibn uh, Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhu bis la tëdd ci kaw li nga xamante ne moom mooy lalam nelaw yeewuwul mu continuer dajeeg ki nga xamante ne moom mooy soppeem continuer dajeeg ki nga xamante ne moom mooy xaritam di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wuy ji borom bi subhaanahu wa taala pour dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci aljanay firdaws déglul sunu yaay Aïcha radiyallahu anha di ñu nettali fan yu mujj ci dundu baayam di Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu sunu yaay Aïcha radiyallahu anha dafay wax ne أول ما بدأ من مرض أبي بكر أنه اغتسل وكان يوما باردا فأصيب بالحمى خمسة عشر يوما لا يخرج إلى صلاة من فبر مجي تنبليك سما ويجر أبو بكر تي أبس لدمون دي سنغ من يكون بس بو حمين تني بس بو سرد لا مو سنغ بمو باري تي سنغ بسي لأم فيبر يرام بي تنغ جر mu tëral ko ci kaw laluk feebar fukki fan ak juróom yoo xamante ne Aboubacar munatul a génn dem jiite nit ñi ci jàkka ja mu daan sant Omar ibn al-Khattabi anhu muy jiite nit ñi saxaaba yi daan ñëw di ko seet si di ko ziyaara ki nga xamante ne moo gënoon a takkook sama wayjur ci feebaram ëpp lum ko doon seet si mooy Ousmane ibn Affanin ba tey sunu yaay Aïcha radiyallahu anha di nettali di wax ne sama wayjur di Aboubacar ci feebaram wa nga xamante ne ca faatoo dafa wax ne xoolal leen ma sama alal ndax am na loo xamante ne dolleeku na ci depuis ñu fal ma ma jiite jullit ñi su fekkente ne am na lu ca dolleeku na ngeen ko jël yépp ngeen jox ko ki nga xamante ne mooy doon xalifa sama ginnaaw ñu xool ne benn jaam la moo ca dolleeku koo xamante ne moom moo daan téye njabootu abu bakarin siddiq radiallahu anhu ak benn giléem goo xamante ne mu nga nekkoon ci benn toolam daan fa roose nee na yooyu yëpp ñu jël ñaari mbir yooyu jox ko omar ibnul xataabi radiallahu anhu ginnaaw bi aboubacar faato ba mu yegsee ci omar omar dafa daa di jooy di dax ne aboubacar sonal na képp kuy nekk xalifa ci ginnaawam allahu akbar ndekete nit di jiite ay nit saytu limu am laata mu leen di jiite ak limu am ginnaaw ba mu leen jiitee dugguleet xoolal Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dafa wax ne ca feebar ba mu tëddee nga xam ne ca la wuyu jee yàlla xoolal leen ma saytul leen ma sama alal évaluer leen ko xool ba xam am na lu ci dolleeku ginnaaw bi ma nekkee xalifa la ca dolleeku delloowaat leen ko ki nga xamante ne moo nekk sama ginnaaw moo ba mu yegsee ci Omar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu dafa jooy ki mooy aboubacarin siddiq radiallahu anhu noonu la feebar bi tëdd tërale ko fukki fan ak juróom ba keroog ci bisuk altine guddik talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeruk jumaadal aaxar ci atuk fukk ak ñetteel ba ci gàddaayu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci la sunu biddéew bi fàqee wuy ji borom bi subhaanahu wa taala taseek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aljanay firdaws kii moo nekkoon ak abu bak moo nekkoon abu bakrin siddiq radiallahu anhu moom lañ àndaloon ci jotaay yi nga xamante ne moom moo weesu yal nañu yàlla dajaleek moom ci aljana yu gën a kawe aljanay firdaws ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama dund abu bakar jeex na mais dund beneen biddéew la ñuy tàmbali inchaa allah ci jotaay yi di ñëw way leen di continuer di ànd ak la RTS والسلام عليكم ورحمة